mbokki Bambey ak li ko wax seen multi service Darou Salam service nekk fa nga xamante ni moo jàkkaarloo ko pharmacie ji bi borom baax daata wala fa nga xamante ni moo jàkkaarloo ko épicerie Georges Fara ñu yëngu ci wàllum plastification texte traitement de texte photocopie impression papeterie waaye yëngu ci wàllum jaayam carte dina jaay demi détail Mango di yëngu it ci wàllum transfert d'argent Orange Money Wari Tigo Cash Sur mën fa fekk nga xamante ni moo di di moo di

rakka bu ci nekk fatiha suratul ixlaas ñeenti yoon sëriñ bi nee képp ku ko jule bala moo jug fam ko doon jule yàlla sunu boroom dina ko jéggal bàkkaaram yépp te du ko mësa mbugal mukk ku ci bëgg am lu ko leer na dem xool téere sëriñ Cheikh Mbacke boobu di xoratul ay ni